alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man wala wa radiya allahu an cheikhina alxadimi ridan la suxta baada mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh noo ngi leen di ziyaar eh, di jéggalu nag ni ko sëriñ bi waxee léegi ngir xataayu waxtu wi kon dana jéem a tënk suñ kem kàttan ndax kilifa yi fi nekk euh, waxtaan wi nga xam ne moom lañuy mbokk na ci lenn ci wax waxtaan yi nga xam ne moom la waajale guddi gu mag gii jëm ñu tërale ko soxna su màgg si mooy soxna Faati Mbàkke te mu doon teraanga joo xam ne nii soxna Maymunatu Mbàkke ci jéem gu nuy jéem a dab ngërëmam mu wóor nu ne lii nuy def moom lañ koy doon moom lañ koy defal ndax bu fi nekkoon moo koy def yàlla na ci sun borom defal tawfiq ci seen barke waaye itam ci barkeb guddi gi ak ci barkeb bayit wi nu jàkkaar lool sëriñ Tuubaa da ci wax naan yaa rabbana bi yumniha di ñaan ci barkeb laylatul qadar lam ca ñaan moo di sun borom defal nu aljanna te defal nu xool yu laab tawfiix ju rëy am ci ndax boo ne yum yumniha ji itam yaakaar naa ne baatu bi yumnu ak barke ak baatu maymuuna dëppoo na lool loolu sëriñ baaxam la ci ne yàlla nañu defal loolu ci barkeb guddi gi ci barkeb sëriñ bi ci barkeb soxna Maymuna ci barkeb soxna Fatim mii nuy liggéeyal tey bañ nangu ko li euh, ñuy tàmbalee waxtaan wi moo di lenn ci ponk yi nga xam ne bu fekkonte ne tey wooteeb sëriñ bi dafa doon ab néeg jën ya taawu wala keno ya ko taawu am na solo lool ci bi bu ne xam ko ndax jën yoo bu jën yi amul rekk xëy na mbaar ma dana sooxe kon ku ne ci nun war naa xam loolu ña ko xamit ci nun di ko fàttaliku waxtu wu nekk yàlla na nu suñ borom defal nu jariñoo ko kon loolu lu am solo la ki nu koy waxtaanal moo di sëriñ alxaaji Fadilu Buso moom sëriñ Ceerno Buso sëriñ Ceerno Astawaalo noo ngi koy ñaanal sun borom defal ko tawfiix ci lii mu nar a waxtaane waaye am nañ ci njort lool budul woon dara ki ñu ko tuddee rek am sëriñ Fadilu mu mënoon di doon bu dikkee di waxtaan fii ci ponk yi nga xam ne moom la al adabul mardiya moo di ay ay teggin nga xam ne bokk bokk na ci ponk yi gën a am solo ci lii sëriñ bi taxawale wooteem bi sëriñ alxaaji Fadil ku tudd sëriñ alxaaji Fadil bu dikkee dina ci waxtaanal yaakaar naa commission culturelle bi jox nañ ko kañ ko war a jox bu fekkee ne sëriñ alxaaji Fadil dañ caa dolli ne sëriñ Azal Fall ne buso itam ba tey dolli ko nay ci la tax ñu ñu xam ne jox nañ ko ki ñu ko war a jox waaye bu ñu nee sëriñ Alxaaji Fàddilu Buso ne Ceerno ku mënoon di tudd Ceerno it bu ñu la joxee waxtaan wi xam nañ ne jox nañ la li ñu la war a jox fii ñu la ko joxe moom yàlla na ci suñu borom def tawfiixi tur yooyu yëpp bokk na ci aada nag ñi nga xam ne ñoo nuy waxtaanal nu présenté leen rek donte ñu bari ci ñoom xam nañ ko waaye nan nan xam ne am na ñenn télévision yi nga xam ne ñoo koy jàllale ñoo xam ne nii xamal xamle leen ko itam dana tax mu njariñ li gën a yaatu ci ñoom sëriñ alxaaji bokk na ci ñi ganee àdduna fii ci Touba fii la jànge alxuraan ba mokkal ko ci daaray maam Ibrahim mañ daa maam Ibra maam Ibra Mbàkke mokkal na ko ba bind ay bu bind ab kaamil jébbal ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu anhu yàlla na ko suñu borom fayal mu dugg ci euh, ginnaaw ba mu dugg ci école euh, daara yi Cheikh Mouhamadou Mourtada taxawoon muy al azharu sharif jàng fa ba am diplôme yi ñuy wax al ibtidaaya ak i'daadiya muy brevet ak certificat ginnaaw ba mu dem Caire ci atum 1984 jàng fa ba am fa baccalauréat ginnaaw ba mu dugg ci kulliye bu ñuy wax kulliyatu sharia wal qanun mooy droit islamique jàng fa ba am fa licence ci fànn goog yi ci 1991 ba mu dellusee ci réew mi nag ñu jël ko muy ci école ba mu doon jàngee ci école al azhar mu doon fa ab jàngalekat di dox di dox ba kay mudir ba mu topp ci moom ba 1996 ba ndëgën si école Cheikh Mamadou Mourtada boobee nekk mu ñu xam ne markaz la sax école yu bare bare topp ca nekk ci fee ca Thiès moo doon directeur ba loolu la as lu tuuti ci lu nuy euh, ngir noo jàpp ci ngir xam ki nga xam ne moo nuy waxtaane waxtaan wi euh, ci tënk rek xëy na ëppoon na loolu waaye nu doy loolu ngir wax ngir euh, xataayu waxtu wi di ñaan sun boroom defal ko tawfiq ci waxtaan wi sëriñ alxaaji Mouhamadou Fadel mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa yi toog ci jataay bi waaye nag muñ dikkee fii ci kër soxna Maymuna ñoo ngi ci jiital sëriñ Mouhamadou Mahfouz Mbacke ak seex Abdul Ahad Mbacke ak njaboot ak soxna Maymuna gépp di nuyu kilifa yi fi toog te jagleen leen jataay bi di waa soxna Faati Mbacke di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala di tax mbokk yi taxawal bis bi jagleel ko soxna si ngërëm lañ cey dabu ci soxna Maymuna di ko dabu ci sëriñ Touba yàlla na ko suñu borom defal di sant sëriñ Moustapha mii doon def présentation bi di ko gërëm ginnaaw guddi na waxtaan wi dañ koy tënk luñ man suñ kemtalaay kàttan ndax guddi na ba noppi ñu ngi joxoon ne nañ waxtaan ci li ñuy tuddee ay teggin te ay teggin noonu ko sëñ Moustapha junjee ponk la bu mag ci yoonu murit ndax xam-xam ak jëfe xam-xam ak ay teggin yooyu siiw la ci yoonu murit teggin nag mooy lépp loo xamante ni xel mu set daf koy rafetlu waaye lépp loo xamante itam xel mu set daf koy ñaawlu des ko tudde ay teggin lu mu rafetlu daal moom la ñu tudde ay teggin moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu waxoon ne lépp loo xool gis ne lu rafet la ci sam xel jëf ko lu baax la lépp loo xamante ni tam xool nga ko gis ne sam xel daf koo ñaawlu mbay boo nga bàyyi ko te xam ne baaxul maa ngi ko wax ca nax fi'luka ma nadarta bi istihsaani wa tarku ma nadarta bi istihjaani mu waxaat ca masaalik ne xamal ne li ci loo xamante nii doomu aadama dana ko yóbbuloo mooy mu taxoo ki ay teggin ndax nee na taxoo ki teggin dana am ñaari njariñ te yépp am solo benn ba mooy dana tax boroomi teggin dana tax mu tàbbi aljanna teggin yam am mën na koo tàbbi tàbbiloo aljanna te itam mën na koo yeggloo ci yàlla inna xayra ma bi hisdaan alfata talaazumul adabi xaysu ma ata li annahu bihi ila rahmaani yasilu abdun wa ila aljinaani mu ne képp koo xam ne itam mi ngi sàkkoo yegg ci yàlla te jaarewu ko ci ay teggin nee kooku bu amee xelam tam am xelam matut ku kullu man bi xayrihi raama rusul li xadratillaahi fa umrun la nabil kon buñ déggee loolu rek ni ko sëriñ bi tuddee danañu xam ne teggin am na wàccuwaay bu rëy ndax bokk na ci meññitam teggin noonu ñu ko waxee dana waral tàbbi aljana waaye dana yeggale nit tam ci yàlla buñ dee xool na wàccuwaay bi mu am ci diine dafa mel ne bu ñu doon xaaj diine ñetti xaaj benn xaaj ba mooy ay jikko yu rafet ñu koy wax al ihsaan moo tax Muhammad Yadaali ad-Daymaani xaaj ko ñaari xaaj teggin yu feeñ yoo xam ne diggante nit ki lay dox ak mbindeef yi ak teggin yu biire yoo xam ne diggante nit ki lay doon ak boroomam waaye mu ne su fekkente nit ki rafetal na teggin yi dox digganteem ak boroomam yàllaa koy jàppale ba defaral ko tegginam yi feeñ yi dox diggante ak mbindeef fi loolu la sëriñ Tuubaa di junju naan wa yatbaul baatina maa qad dahara taqdir bi mooy wa yatbau maa qad dahara baatina mooy nit ki su xëntewoo ba defar xolom ba xolam set bicc ay cëram dootu mën a defete lu ñaaw waaye su fekkee xolam dafa tilim ay cëram itam dootu mën a defete lu jàpp loolu la yonent bi alayhi salaatu di leeral ne sunu borom du xool seeni melokaan du xool seeni alal waaye seeni xol lay xool ak seeni jëf moom lay junj ne biir nit biiru yaramam am na fi cër boo xamante ni su jagee lépp jag waaye su yàqu lépp yàqu te nee na mooy xol liy tegtale itam ci tënk ci yitte ji Sëriñ Tuubaa jox ay teggin ak importance bi ay teggin am la mbokkoon ca dénkaane ba moom Sëriñ Tuubaa nee ne wasiyatun tukathiru li kulli man yajtanibu al-xataaya dénkaane ngi yoo xamante ni ku ci jàpp say may dana dolleeku waa ñëpp ñeel képp koo xam ne ma ngay ko ay ñaawteef usiika bil ilmi wa bil amali maa taaddubi alal kamaali maa ngi lay dénk ci ngay sàkku xam-xam waaye nga boole kook jëfe xam-xam boole kook ay teggin itam ndax loolu moo lay dimbale ba nga am ak mat mu teg ca ne moom Sëriñ Tuubaa mu teg ca ne wàll yi li ñuy baax baax wàll yu yegg ci yàlla la leen yeggale ci yàlla nee na du julli kese du aji màkkay kese du natt asakay kese ndaxam yooyu baax na waaye nag dañ caa boolewaat leneen bañ jëfee yooyu ba noppi dañ caa boole di sàmmonteeg ay teggin yoo xam ne mun a ñàkk nee na sàmmonte googee ñuy sàmmonteeg teggin ci lañ jaare ba féete kaw mbindeef yi waaye nee na jaare woon ko ci baril ay ay ay werante ak dajjante wa saxa an al awliya saalihin waasilin maa wasalu ila ilahi alaalamin bi kasrati al amali ka salaati wa xajji baytillahi wa zakaati bal wasalu ilayhi bir riaya li jumlati l aadaabi bil anaaya wa bil muraaati laha saadul wara laa bi idaamati l jidaali moo tax mu waxaat feneen moom Sëriñ Tuubaa ne xam ne ay teggin mooy taaru boroom xam-xam mooy taaru kuy sàkku xam-xam mooy takkaayu ko am xel ak ku lewet nee na mooy boppi jikko yu baax yépp moo tax nag ku wéet ci ay teggin nee na neen nga yàqu nga te itam lam lay jural mooy mbindee fi duñ la bëgg yàlla mi bind mbindee fi duñ la bëgg te ku la gis mere la ku la gis bañ la ku toog ak yow yokkat sab toogaay maa ngi ko wax ci nax joxe daal xaalis loolu kon ku ko dégg da nga xam ne Sëriñ Tuubaa jox na ay teggin wàccuwaay bu rëy waxaat ci beneen dénkaan ne na ngeen di am ay teggin ci lu feeñ ak lu nëbbu teggin yooyu nag na ngeen ko doxale seen digganteeg seen borom waaye na ngeen ko doxalanteeg seen digganteeg mbindeef yi te addabu fi alanin wa sirri maal ali wa xalqihi bil mu waxaat feneen ne àdduna jigéen di gis ñaar rekk a fi nekk ay teggin ak barke neena na na nga jiital ay teggin ci barke ndax nee na barke boo amee teggin am ko inna dunya lam yakun fiha illa asnaan al adabu wal baraka wa qaddimi al adaba al baraka li anna al barakata la tajiu illa min al adab moo tax nag mag ñi bi ñu xamee na ay teggin mënut ta ñàkk ci lañ dem ci sëriñ bi na ko bëgg nañ nga taalifal ñu téere boo xam ne ni buñ bëggee am ay teggin buñ ko jàngee man ko caa am téere boobee mooy nax ju xadaayil xaaj haada wa inni l yowma do ijaaba baadi l muridina dawil inaaba qad talabu minni nazman xawaata adduba li yata addabu wa daaka wajaba nee na yu mag yooyu ñoo sàkk woon ci moom sëriñ bi mu woyal leen ab téere boo xamante ni lam làmboo mooy ay teggin ngir suñ ko jàngee man caa ami teggin te nee na loolu ñu sàkku nag lu mat a sàkku la is kullu man bi xëyri raama tibaa fa innahu yuxramu fawzan wa intifaa ndax nee na képp koo xam ne nee na ñukk fi ay teggin te ne damay topp yàlla nee na def na ko xañ ak texe te du jëriñu wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru mactazi bihi du izzi nee na ay teggin mooy ngeen ji trésor ngeen ji nit ki denc ngir mu jariñ ko ci àdduna ak àllaaxira te kuy sàkku ak teggin kuy sàkku tedd nga la koy sàkku la ca gën mooy ay teggin fa innahu munawwirul janaani yu yuqarribu ilal jinaani nee na ay teggin mooy leeral xol mooy jege nit ki foo aljanna wa yujibul madxalatal jiraani kama yuba'idu ani niraani nee neena dana tax ki amee ay teggin ñoom dëkkal dañ koy sopp di ko tagg waaye itam dana teggin yooyee moo koy soril sawara yaa man yuridu ismatan min al wadab laazim tuqa tuqan wala tufariq al adab nee na yow mi nga xam ne bëgg ngaa mucc ci ay wañ ak jikko ju ñaaw ak lu ñaaw na nga taqoo ak ragal yàlla te bul teqalikoo ki teggin mu waxaat ci beneen dénkaane yéen mboolem taalibe yi dénk naa leen ngeen sàkku xam-xam waaye bu leen yem ci xam-xam rek boole leen ko ak i teggin na ngeen di góorgóorlu ci sàkku xam-xam ak teggin te ak jëf lu baax nee na loolu mooy wammat mboolem xemem te fii ndax képp koo xam ne ma ngay sàkku euh, yegg ci yàlla te jaaree ko ci ay teggin nee na kooku ab dof la boo xam ne amutu xel istahido fil ilmi wa taaddubi wa yi waxee jaaribaatu jaalibatul raxabi teggin yooyu nag am na ci ay misaal yoo xamante ni yu feeñ la am na yoo xam ne yu nëbb la bokk na ca ci misaal yiñ ciy indi mooy xosnul xuluq te mooy rafeti jikko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fonkoon na ko lool ba daa wax naan wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan boo de na ngay woon jikko nit ñi jikko ju rafet mooy na ngay jëfandikoo nit ñi ku nekk fam toll nga woon ko ay teggin ndax nee na kat boo salfaañee mbir mi lu baax ndax ne soo fekkee da ngay taseeg ku réer ba noppi bëgg koo jaay ak xam-xam wala koo xam ne jàngul dara nga bëgg ko jaay ak fiq ak dégg xam-xam ku ñàkk xel nga bëgg ko jaay làmmiñ wu leer nee na da nga loru lore da nga loru lore kon xaatibu naasa ala qadri aqoolihim nit ñi na ngeen di wax ak ñoom fañ toll loolu nag la imaamul xasaadi yi itam tënk wax ne laa tastaxil bi wazi man laa tara fihi maxaayil al qabul fala yasmacu minka wa yuaadi nee bul waar koo xamante nii gisoo ci moom mu am préparation ci nangu ak waaraate ndax ne kooka boo buy déglu sag waaraate itam am noon dong la lay jàppe loolu kon mooy ki ngay waxal na seet wax ko lu xaj ci noppam xaj ci boppam ndax loolu mooy tax mu mën caa jariñu kon jikko ju rafet jooju ba cay toppaat nag mooy alxayaa mooy kersa jikko la joo xamante ni ku am day tax mu dox sa digganteeg jëf-jëf ju bon moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tënkoon ne nit ki daal su fekkee amut kersa baye boo mu def lu ko soob iza lam tastahi fasna ma sita mu am kersa goo xamante nag baax na mooy kersa gi dox sa digganteeg def lu waaye kersa gi nga xam ne nag day day fekk lu baax nga ne damaa am kersa ba duma ko def nee na baaxut moom la tuddee alxayaa u tabian mooy kersa goo xamante ni dañ ko bindee yenn doomu aadama yi nee na xeetu rëy la te mooy kersa goo xamante ni da nga gis nodd du jot kenn nekk fa ku mën nodd ku dul yow nga rus koo def lu mel noonu te nodd sunna la nekk lu baax loolu la ko tee boo ko tuddee kersa itam kerse gu bon ba bu ñetteel ba mooy ak tayaamunu mooy lépp lu am ndeyjoor ak càmmooñ nga jiital ndeyjoor ba surtout su fekkee lu baax la ndax yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggoon nay jëfandikoo nday ndeyjooram lool bu dee sol ay dàllam tànku ndeyjooram day jiital bu dee dox itam tànk nday joram lay jiital bu dee sangu laab itam cëri nday joore lay jiital mbiram yépp da caa bàyyi woon xel ci loolu kon yooyu dañuy topp rek yenn ci nga xamante ni ay jikko yu rafet la ak i teggin yu yonente bi jàngale te sëriñ Tuubaa itam ferdli ko bokk na ca ngay jëfandikoo bismillaahi boo dee jëf lu lu mën di doon nga jiital ci turu yàlla ndax yonente bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon kullu amalin dibaalin lam yubda bismillahi fa huwa aqta bépp jëf boo xam ne am na solo te tàmbiwulee woon ko ci bismillahi nee na jëf joojee day dog du yegg te jullit nag luy dog jëfam ba du yegg ba du ca am tuyaaba war na koy moytandiku ñeenteel ba mooy assiwaaku mooy soccu ndax si soccu dana laabal gémmiñ dana waral ngërëmal yàlla moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam fonkoon soccu lool te ku ko fonk mooy fonk ak cet ba yeggoon ci moom bu toon a sonal sama xeet danaa leen digal ñuy soccu bala ñooy julli kon nag loolu bàyyi na xel ci e, bañ leen a sonal waaye bëgg na leen ci xamal ne itam di jëfandikoo soccu baax na juróomeel ba ci tënk mooy nuyoo ak di tasaare am nuyoo ak di joxante ay loxo ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na woon asalaamaaleykum day leen ko tasaare ci seen biir ndax bu ngeen ko dee tasaare rek jàmm di tasaaroo seen biir nuyoo nag ni ko nit ñiy defee am na nu ko lislaam digle woon mooy kii yéeg dara di dem romb ñu toog yow ka yéeg yaa war a nuyoo waaye kii dox romb ñu toog yow kii dox yaa war a nuyoo kii lim bi néew te romb nit ñu bari ñu néew ñu ñoo war a nuyoo xale itam moo war a nuyu mag loolu itam ñu bàyyi ko xel ndax yonent bi alayhi <coughs> euh, am na bis jenn waaye ñëw ci moom nuyu ko ne ko asalaamualeykum yonent bi delloo ko nuyu ba waaj dem toog yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ne fukk ngi noonu am keneen ku ñëw daal ne yonent bi asalaamualeykum yokkaat ca wa rahmatullahi bi fay ko ba noppi dem toog yonent bi daal ne ñaar fukk ngi noonu am ku ñëw daal ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yonent bi fay ko daal ne koo dem toog mu daal ne fanweer ak noonu loolu mooy kon ab nuyoo su fekkee mat na nga ne asalaamaaleykum am nga fukki tuyaaba boo ca boolee wa rahmatullahi am ñetti am ñaari ñaari fukk boo ca boolee wa barakaatu joo am fanweeri tuyaaba loolu nag boo gisee ñu koy tudd nuyoo dafa am solo am solo goo xamante ni jullit yu baree baree baree bari dañ koo sàggane bëgg koo weccoo ak yeneeni nuyoo yoo xamante ni lislaam waxu ko woon te yonent bi nee na woon na ngeen di tasaare am nuyoo tey leele aw ñam tey jokk ak bokk te bu guddi jotee ba nit ñëpp tëdd ngeen jóg di la te di ko def ngir jëm yàlla tabaraka wa taala nee na su ngeen ko defee da ngeen tàbbi aljanna ndax nuyoo boobu boo gisee ñu taxaw ci bu tasaaroo ci biir société bi rek jàmm ak mbëggeel ak bu dëppoo dafay daal di tasaaroo ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon du ngeen tàbbi àjjana mukk lu dul da ngeen a gëm yàlla waaye du ngeen gëm lu fekk da ngeen a bëggante xanaa du ngeen ñëw ma wax leen loo xam ne su ngeen ko defee bëggante ñu ne ko ah kay mu ne tasaare leen am nuyoo ci seen diggante nuyoo boobu nag dafa am ay teggin yoo xam ne jullit bu nekk war na koo bàyyi xel ndax nuyoo jullit ñi kenn waru koo remplacer beneen nuyoo lu mel naan sabaaxul xëyri mooy jàmm nga fanaan wala nahaaru ko sa'id wala xeeti baat yoo xamante nii da ngaa bàyyi asalaamaaleykum joojee wa rahmatullahi taala wa barakaatu weccee ko loolu loolu nag bu ñu ko déggee kon sant ak sant itam leneen la ne ko sant sàngam mu wax la saw sant kenn waxu ne du nuyoo waaye nuyoo aada la waaye daa am bu ko gën bi ko gën mooy nga wax lañ la wax la woon ndax ak ñaan la yàlla na jàmm wàcc ci yow ak yërmande yàlla ak barkeem moom itam mu ñaanal boo nee nag diw sàngam nangam tudd aw santam mu tudd saw sant nuyoo ngeen ci aada de waaye ñaanal ñu tëb loolu nag kon lu mat a bàyyi xel la bu ko defee nag boo nuyoo nit ki ne ko asalaamaaleykum baax na ngir ak cofeel gën a dox seen diggante mooy nga jox ko loxo jox ko loxo itam dana yegg ci ngir warmaal nit ki nga fóon ab loxoom mooy li ñuy tudde ñun sujjóot nit ñi dañ koy defal nit ñu baax ni ngir barkeelu ñoom ak weg leen te am na cëslaay ci diine hmm. ndax ibnu omar radiyallahu anhuma wax na ne ñun de daanañ fóon loxol yonent mi aleyhi salaatu wasalaam daanañ ko fóon kon loolu ñu xam ne am na cëslaay ndax jullit yonent bi ne na woon ñaari jullit suñ tasee ku nekk nuyu moroom jo jox ko loxo wax asalaamualeykum bàkkaaree day seen ñoom ñaar ñëpp seen bàkkaar day ànd sippeendoo daldi rot kon loolu mu nuyoo nañ ko bàyyi waat xel ndax ci teggin yi la juróom beneen ba mooy ngay tabe ci alal yi nga am te di ko joxe ngir jëm yàlla ndax sunu boroom moo wax ne wa fi amwaalihim xaqum maalum lissaa'il wal mahrum juróom-ñaareel ba mooy ayaadatul maridi mooy seeti ku wopp seeti wopp itam niñ taxaw ci nuyoo des na fa taxaw Sëriñ Tuubaa nee na seeti ku wopp am na solo lool wa hakaza iyaadatul maridi wa radduka salaama quz qaridi bokk na ci teggin yi nga xam ne kuy seeti ku nag war na koo bàyyi xel ba ci njëkk mooy xifatul jilsa mooy nga woyofal toogaay ba nga fay toog ca kanam kopp ba bu ñaareel ba nanga nga néewal laaj ak jàmmante ba ndax da koy sonal bu ñetteel ba mooy nanga nga feeñal foofa yërmande ak di ko ñaanal bu ñeenteel ba mooy na nga téye sa bët ba doo fa xool loo xamante ni ki wopp bëggutoon nga xool ko te boo demee ba bay ñëw ci moom itam bul agsi rek na ba ñaax dugg waaye danga war a ñëw taxaw ci wetu bunt bi boo taxawee ci bunt bi itam amul fëgg fëgg bii ñuy def itam leneen la lañ la digaloon mooy laful te bañ a jàkkaarloog bunt bi yow mi jéglu daal di ñëw daal di taxaw daal ne daal di nuyoo jërul sax ngay wax naan bu ñu waxee ne kooku kan la bul naan mën a diw sàngam mën a ngóor si wala waaye nee nañ waxal alhamdulilah wala nga sàbbal sa borom bu ko defee boo demee bañ fay la nga dugg di seet ku wopp nee na bokk na ca lañ lay sant nga fab sa loxo teg ca kaw jëm jëw ko wopp ko wala nga fab ko teg ko ci ab loxoom nga laaj ko nan la fanaane wala lan nan la yendoo nan la yendoo waaye yonent bi aleyhi saatu wasalaam nee na ku seeti ku wopp te def ko ngir jëm yàlla sunu borom wutal na la dëkkuwaay ca digg aljanna ndax day digal juróom-ñaar fukki malaayika ñu lay ñaanal ba kër guddi di jot hmm. seeti ku wopp nag ak seeti mbokk yombatu sëriñ alxaaji mbàkke jaxate muy jàngale ci jumaa ji wax na ne e, seeti mbokk li muy baax baax seytaane dafa xam ne dafa baax moo tax mu taxaw ko nee na da romb e, sa mbokk mu na ne mi ngi dëkk ci wet gi nii nga xalaat ne teema koo seeti fa nga koy xalaate seytaane xam ne li nga nar baaxut ci moom mooy dangaa bëgg lu baax mooy seet sa mbokk mu njëkkanteeg yow déy la ab déy nga ne ko lu la seytaane dee mu ne danaa la li nga bëgg de baax na diw sàngam sa mbokk la danga ko bëgg a seet nga ne waaw mu ne loo ko yëtaale loo ko yëtaale nee na nga xalaat tuuti làmb sa poos wala nga ubbi sa porte-monnaie fekkoo ca dara nga ne naa ko bàyyi ndax aw ko muy dara mu ne nag saytaane foofe lay sar xollee bég moom mm-hmm. ndax la nga bëggoon defoo ko te nee na la ko la lam la lam la naa digal la bokku ci woon mm. loo ko yëtaale mm. bokku ci woon da mbokk boo koy seet danga koy seet rek ngir jëm yàlla mm. waaye léegi gëmloo ñu nañ ñu bari ci ne kuy seeti diw sàngam da nga koy yët yët dara boo amul loolu toog nga xam ne mën nga faa bañ jaar ay at wala ay weer ngir ne amoo loo ko yët loolee nga te boole nag bokku ci kon mboolem teggin yi nga xamante ni ñu ngi koy séentu ci ku wopp ku ñuy seeti bokk na ca nga digal ko mu rafetal ak muñ nga digal ko mu wàññi njàmba nga di ko ñaanal ak nga di ko digal tam mu jëfandikoo garab yi te sukkandiku ci yàlla te xam ne mooy fet nuyoo boobu ñu doon wax itam nga ne nit asalaamaaleykum sunna la waaye fay ba mooy farata kon bu nit nee la asalaamaaleykum sunna la jooxe waaye nag bu la ko xasee wax nag yow nga delloo ko nuyoo boobu farata la loolu te farata nag mooy loo xam ne soo ko defee te jublu ca ndigal jëfe la yàlla sunu borom bindal la ci tuyaaba soo ko bàyyee nag yayoo nga ca yayoo ndax boo tuubee sunu borom la waaye boo ko bàyyee te tuuboo yayoo nga ca mbugal ëllëg yowmal qiyaama kon delloo am nuyoo farata la naka noonu bokk na ca jikko ya nga xamante ni wala teggin ya ñuy kii mooy nit koo xam ne dafa nekk sa wet tisli bu waxee alhamdulilah war nga koo ndokkeel ne ko yar yarhamukallah bu ko defee itam moom mu ne la yahdikumullahu wa yuslihu baalakum loolu ah, lislaam def koo digle naka noonu bokk na ca eh, teggin yi yi rafetal dundab doomu aadama mooy lewi ay we ak dagg ay kawar yu dolleeku ak di yëglu nag bala ngay dugg fenn foofu itam nag fa lay taxawaat ndax ñaar am na yëglu boo xamante ni Sénégal foofu sonk nañ ko mooy dëkkoo ci kër dem ci génn kër lu ci bari da nga yëglu loolu moom fonk nañ ko waaye ba nga xamante ni nag fonkuñ ko ci laa jëm ah nit waroo ñëw ne bañaax dugg ci këram te amoo ca ndigal nangay dégloo euh, yëgloo nag nee na ñett yoon lay doon ñett yoon lay doon buñ la tontuwut ñibbil ñett yoon yooyu mooy da ngay lafu ci wetu bunt bi daal ne asalaamaaleykum ne cell ñëwaat asalaamaaleykum ne cell di dégloo asalaamaaleykum ne cell buñ la buñ la kenn waxul dara ñibbil mooy sës doo kon fëgg ba mu doon fëgg ndax nee na lu tax ñuy wax ñetti asalaamaaleykum yooyu nee na fal awwal yastansituun bu njëkk ba ba nga ko waxee dégg nañ la wasaani yastaslixuun bu ñaareel ba ba nga ko waxee ña ngay defaru bu ñetteel ba yastazinuun aw yarduun bu ñetteel ba buñ ko déggee ci lañ laa la jàll si wala bul jàll si muy ñett kon asalaamaaleykum ñett yooyu ñu lay waxloo diggañ diggaluñ la ko rek waaye am na xikma wala jubluwaay buñ ci jublu moo tax nee na eh, yonent bi àll salaatu wasalaam demoon na di ziyaare ji Saad ibnu Abada radiyallahu anhu ba yonent bi dikkee ba ci buntu kër Saad mu taxaw fa ca kanam bu buntu kër ba la fa noonu daal ne asalaamaaleykum wa rahmatullah te nee na fekk na Saad mi ngi ci biir maa ngi koy dégg Saad da koy nettali nee na bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi ma ne ko waaleykum salaam ndànk sans lu moo koy nettali mm. mooy fayuma ko ca kaw mm. yonente bi baamtuwaat ko ma fayaat ko ndànk yonente bi baamtuwaat ko ma fayaat ko ndànk di dégluwaat mu waxaat déggaatuma ko nekkata ma ngay dem mm. nee na ma génn dabi ko daan na ko yonente bi sa ñetti asalaamaaleykum yëpp maa ngi ko doon dégg yëpp itam maa ngi la doon delloo ab nuyoo waaye daa ko doon wax ndànk ngir bëgg nga taxaw fi yàgg maa ñaanal may may wax amin looloo ko waral kon loolu ñu bàyyi xel ne noonu lañuy ñuy war di yëgloo waaye yëgloo bi nga xamante nii nag euh, moo moo bi nga xam ne moom la alquran di wax naan yaa ayuha alladina amanu laa tadxulu buyutan gayra buyutikum xatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha ak fa isa daxaltum buyutan fa sallimu ala anfusikum ak wa isa xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha ak yaa ayyuha llazina amanu liyastazinkum allazina malakat aymanukum balaa ya jeex hmm. yooyu ay teggin la yoo xamante ni yu rëy rëy rëy rëy la benn bi laa wax ne Sénégal yi fonk nag waaye bi nga xam ne mooy liyastazinkum allazina malakat aymanukum hmm. mooy ni ñuy organiser biir kër gi hmm. biir kër gi nga xamante ne xale yi fi lañ dëkk surga si fi lañ dëkk jànq yi fi liggéey fi lañ dëkk borom kër fi la dëkk soxna fi la dëkk dafa amaat système bu ko lislaam organisé waat ci nuñ fay yëgloo sunu borom dafa wax ne xale yu ndaw yi ak soxna yi ak même boroom kër ak surga yi ak janq yi fi liggéey luñ dëkk-dëkk ci kër gi lu ñu fi dëkk dëkk dëkk fu leen neex am nañ sañ-sañ di fa place place place yi dugg ak génn nee na ba mu des ñetti waxtu ñetti waxtu yooyu nag moo bari ci senegal ñu ko fonkut ñetti waxtu yooyu mooy lan alxuraan nee na liyastazinkum alladina malakat aymanukum walladina lam yablughul xulma minkum salaasa marra xale yi dëkk ci kër gi ak jaam yi ak surga yi ñu man caa xiyaasaale jànq ji ñi ngay liggéeyloo nga xam ne ci biir kër gi lañ dëkk nañ lu ñuy man di wëndeelu ci biir kër gi nañ fa bàyyi ñetti waxtu waxtu ba ca njëkk nee na moom min qabli salaatil fajri njëkk ñuy julli fajar loo dëkk-dëkk ci kër gi loo nekk-nekk gone war nañ laa jàngal ne amoo sañ-sañ fël ab rido néeg dugg ci te waxoo yëglu ak loo nekk-nekk gone dañ la ko war a jàngal loo fi sañ-sañ-sañ waroo am ci néeg boo xam ne ci waxtu fajar boobu dangay ñëw rek fël rido bi dugg ndax loolu dana indi njaaxum yu bari ak ban waxtu mu ne waxiina tadauna thiyabakum min adahira waxtu bi xam ne nit ki liggéey na ba wàcc dugg néegam di sensé ay yëreem ngir sol yére yandukaayam waxtu woowu nee na loo nekk nekk xale loo nekk ab janq ci kër gi loo fi nekk ab surga nga xam ne amoon nga sañ-sañu waxtu wu nekk nga dugg ci néeg yi nee na waxtu woowu na nga ko fa bàyyi bala ngay dugg na nga yëglu ak ban wa min ba'di salaatil isaa'i ak buñ jullee gee ba nopp nit ki di waaj ngir fatu tëdd waxtoo muy soppi ay yëreem waxtu woowu nee na bul dugg ci kër néeg bi lu dul dangaa yëglu salaasu awratin lakum laysa alaykum wala alayhim junaahum baadahunna tawaafuuna alaykum baadukum ala baad nee na bu waxtu yu weesoo nag amatul bàkkaar yéen ku nekk mën naa circuler fu ko neex fu neex loolu kon euh, mbir la moo xamante ni lu mat a bàyyi xel la fukkeel ba ak ñaar ci jikko yi wala teggin yooyu mooy afwul mar'i man dalama hmm. nit ki di jéggal ku ko tooñ ndax sunu borom dafa tagg ñi nga xamante ni nee na mer mënut a ñàkk de waaye mer nag loo mer mer mer na ngay nëbbu sa mer te na ngay jéggal nit ñi ndax yàlla day bëgg di sopp way rafetal yi wal kaadimiina al gayza wal aafina ani naas wallaahu yuhibbul muhsinin nee na nit ñi ku jaxasoog ñoom du ñàkk bis ñu teg la lu wala nga gis ñoom musiba mu jóge ci ñoom dal ci sa kaw waaye nag lu man di xew nanga nga fopp sa mbir wékk ko ci yàlla te ñaan yàlla mu musal la seenu ay waaye bul bul bul fayantoo ndax nee na boo fayantoo da ngay yokk loraange rek te sag dund day day day réer ci yittewoo nga yittewoo ak di xalaat tooñ gañ la tooñ moo tax sëñ Tuubaa ci masaalikul jinaan ne wala tufakkir fii zulmi saxsin zalim di concentré wu sax ci diw sàngam tooñ gi ma def di ca xalaat mu lu aw naqar nee na bu ko def buñ la tooñee jégg leen ngir jëm yàlla te fàtte tooñ googee bu fa nekk di wax naan diw sàngam dafa xamut sama barab ak sama wàccuwaay tax mu teg ma lii nee na loolu jëru ko fukkeel ba ak ñett mooy silatu rahim mooy jokk ak bokk ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku bëgg sa wërsëg yokk yàlla yokk saw fan na ngay jokk sa bokk ndax nee na kat kuy dog ak bokk du tàbbi aljanna fukkeel ba ak ñeent mooy di yittewoo di yar xale yi ñu bari ci way jur yi nag foofu lañ koo ba bàyyi xale yi lu leen neex def te nee na bokkoon na ci bunt yi mën a yeggale nit ci yàlla kat mu yittewoo yar xale yi wa minhu tarbiyatuka al awlaada li kay yanaalu baadaha rasada fa sabrina ala al iyaali wa ihtimaal adan min al jamia fialan aw maqaal nee na ku nekk ñoom da muñ ndax du ñàkk ñu wax la lu la naqari wala ñu jëf la lu la naqari fa inna fi l'iyaari turqan lil jalil jalla wa adnaaha ihtimaamun yaa xalil ndax nee na njaboot gi kat sunu borom sàkk na ay yoon yu jëm ci moom yoo xamante ni ci njaboot gi la ko jaaree mu ne bihim wa alaha rida an rabbina maa tawakkuli alayhi zamana fihim wal awsatu infaaqu alayhim wa ma bihi siqaaq kon euh, waxtaan wi desoon na waaye dafa guddi dañ ne woon nañ ci barkeel loolu rek waaye wax dëgg yàlla euh, guddi na te jataay bi yàgg na te ñàkkul ñeneen ñu ci war a mën a sànni ay kàddu ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dañ ko jàng ci ak yàkkamti ak yoon sakkanal waxtaan wi ñoo ngi ñaan lépp loo xamante ni nekk na ci ay njuumte sunu borom jéggal ñu ko te lépp loo xamante ni itam nekk na ci ak njub yàlla ñu sunu borom boole tuyaaba ji ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala njaboot May mën a gi yàgg taxaw bisam bii te am ci ngërëmal sëriñ Touba am ci ngërëmal yàlla am ci ngërëmal yonent am ci ngërëmal Serigne Touba am ci ngërëmal soxna Maymuna te ñu yàgg leen see wuy si te sunu borom bi ñu ci tuyaaba ñun ñëpp ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi sant nañ bu baax a baax xamee nañ ci it ne sëriñ bi nii mu mooñee woote bi ñu doon wax. mooñ na ko ba def ko ci ñépp ba nga xam ne loolu euh, euh, euh, loola la ñëpp di doxe ndax dafa mel ni sax ak taalibe moo di teggin mel na ni wax nañ ne sëriñ bi nee na ay teggin de képp koo xam ne nii jël jëli nga ko fii ci kër bi li fi am lépp jël nga ko waaye koo xam ne nii raw na la jëli woo fi dara teggin itam doon loo xam ne nii ci neen koo déggee ci waxtaan wi daanaka dunduk nit ki lépp la max ba ci tegg yi ni nuyoo loola itam waxuma la sëriñ bi waaye dongay sëriñ bi ak yarub sëriñ bi rek ña ngay jot li message boobee ba mu doon lu mel ni lu ñu mooñaale taali bi yëpp sëriñ bay jaxate ci nuyoo bu mel ne bii nga doon wax te yarub sëriñ bi moom mooy alxuraan rek na ko alxuraan waxee ni nga ko waxee sëriñ bay jaxate dafa wax ne waxal salaamun aleykum yetti yoon te taxaw ba dégg ne si la yegsil mbaa nga dégg doxal ne sëqat nu yoo la yëngal aslaf nu la ba tey teslig nu la ba tey xeeti nu yaa ngi yàlla nanu ko sëñ bi fayal euh, nga waxtaane itam lu am solo moo yar waaye bokk na ca la nga xam ne yaakaar naa ne ab bind la bu rëy bu xam noonu ñii ñëpp moo di kii nga xam ne tey mooy sëriñ Touba di jëwriñu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi suñu borom yàggal eggale ay naalam yàggal nu ci ginnaawam mu yàgg doon sunu royukaay laata muy doon Serigne Touba day doon moom rek ak dundam doon na ab. tarjama bu wóor ci lii nuy wax ab yar danaa wax tuuti ay lool moo ko wax ñëpp mokkal ko waaye mën naa dugg ci lii nga doon wax te ab yar nag ni ko wax xamee dafa doon lu yaatu loo xam ne sa diggante ak sa borom sa diggante ak say morom sa diggante ak ñëpp waaye nag am na ci solo loolu lañ mandarga ab taalibe mooy sa diggante ak sëriñ bi Cheikh Mouhamadou lu ma taxaa de leer euh, wax na ne sëriñ bi dama ko ni may doon def moom mooy dama ko jox sama bopp te bàyyee ko ak boppam jox ko sa bopp bàyyee ko sa bopp kon maris naa tënk foofu ak ab yar itam sa diggante ak sëriñ bi leçon la boo wóor wóor boo xam ne waroon koy fàttalante te fas ko yéenee doxee sun diggante ak sunuy kilifa